arrêté mbir mi ba muy door wala balaa muy sore torop euh, mais xam nga ñun dañu gëm ne Afrique moo war a aar boppam moo war a sàmm boppam moo war a dimbalee yeneen africains yi donc li ñu gënoon métti à l'époque mooy lu tax euh, réew Afrique yi jóguñu gaaw dugg Rwanda arrêté loolu lu tax OUA jógul def li mu war a def donc tey boo xoolaatee situation boobu nga xam ne foofu Afrique li mu waroon def defu ko. tey euh, gaayam ne nañ génocide jeex na ci histoire monde mënatul am fenn loolu wóoruma 2006 nous avons doon wax génocide au Darfour temps massacre de Mali ak Burkina Faso nit ñaa commencé di wax encore ay actes génocidaires mi ngi am donc africains nous góorgóorlu bu ñu lu mel ni bettati euh, nous xam ñun ñoo moom suñu continent euh, xeet yi nekk ci Afrique yëpp euh, Cheikh Diop ba mu ko wanee du léegi benn lañu ñun ñëpp ñoo bokk cosaan ñoo bokk ay maam donc nañ joxante loxo Afrique peuple Rwanda fi ak fi mu yegg tey euh, presque di jiite Afrique ci innovation yi bare lu bees lu baax lu ñu def Afrique kenn du ci jiitu Rwanda par exemple sargal jigéen ñi jox leen respect boole communauté yi jeunes yi nekk ci start-up ñoom seen Rwanda mi ngi dem kanam moom la ñu wooyee le pays start en Afrique loolu dañ ci war a euh, féliciter peuple rwandais demander aussi yeneen peuple africain ñu def la même chose góorgóorlu pour ñu gën a mën jëm kanam.